ASID TV la chaîne des patriotes. mbokk internet yi dal leen jàmm ci ASID TV ki nga xamante ni moo di asset Diouf ñu koy woowee saagakat bu njëkk bu gën a mag fii ci réewum Sénégal moom nañ dalal fay fa juri moom nag yëq na lu toll ni xamee ki nga xamante ni moo di Maître El Hadji di avocat. mi nga xamante ne moo yëkkati ay kàddu jëmale ko ci moom. ndax kat ki nga xamante ne moo di maître El Hadji Diouf ab avocat bi moom xam la ne ni Assane Diouf dafa dëkk ay weer ci biir këram foofee ca Almadi journaliste bi waxee li ni mel moom nag da ko weddiwu ko benn yoon waaye gis na ni ñaari fan donc képp la fa def foofee ca këru El Hadj Diouf te kat bu mu jógee euh, état foofee nga xam ne moo di États-Unis yoon doon ko topp bu mu génnee ca kaso ba nag ci la ko Maître El Hadji Diouf fat ñaari fan ci biir këram googu di Almadies ngir saytu li nga xamante ne moo di kaaraange kooki di clientam Assane Diouf ne kooki di El Hadji Diouf mooy ki nga xamante ne moo layool ki nga xamante ne moo di Assane Diouf gannaaw buñ ko jàppee woon foofee ca kaso tax mu nang li ne dafa kaaraangeem dafa nekkoon ci xottu waaye tamit nag taskatu xibaar yi may ñu ko woon benn yoon jàmm looloo waral mu nangu fat googu ñu ko Maître El xamle ni kooki di Maître El Hadj Diouf li mu tax mu fat ko sax bës dong li ci doon wër kaka ka xamal moo di ab doomam bu jigéen mu nekkee ci kaso gi moo ko woo kookoy Assane Diouf daal di koy xam ne papam lépp lu mu def rek bës moo ko ci dugg Assane juuf di àddu ni ba tey nii kii di metti El Hadj bu nee da ko jëndal ay yére waxul benn yoon dëgg ndax kat yërëm yooyu mu daal di jënd foofee la ko jëndee ci casino bi ndax jëndeewu ko fi nga xamante ne moo di Colobane ndax jàpp na ni foofee ca marché bu Colobane lu fay jëndee lu ci bëri ay chinois la moo waraloon mu ki nga xamante ne moo di Papis Konaté di ab xaritam foofee Modou Lo ngi jënd yëre yu ne marque yëre yu marque na moom kat Assane Diouf jàpp na star la kon nag yëre yu mu war a mënti doon di sol nekk ne moo di xaritam mi mu dem ca marché Colobane jëndee fa ay yëre li waral coowam bi ci diggante moom ak maître El Hadji Diouf moo di dafa génnoon ak ay xaritam waaye nag fekk fa woon maître El Hadji Diouf di soxnaam ne ko dina génn waaye nag bu guddee pour koo di soxnaam daal di jóg mu tijj tijjil ko buntam bi waaye yaakaar googu mu amoon pour bu guddee ñu tijjil ko daal di dina taas ndax kat foofu moom bu mu jógee ci fa mu demoon ki nga xamante ne moo di Assane Diouf daa mujjee fekk ñu tëj buntu këru maître El moo Diouf di daal di toogandi ci otoom daanaka sax fala fanaan ba bët set ki nga xamante ne moo di Maître El Hadji Diouf ci la jóg tijji buntam waaye daal di fas kanamam defaraat ko ba mu baax daal di changé kanamam xar kanamam li njëkk a bàyyiloo xel moo di ab xaritu Assane Diouf bi nga xamante ne ñoo àndoon nag moom te fanaanal moom ci biir oto bi waaye nag ci li cek na woon na leen la ko Maître El Hadji Diouf daal di woo daal di koy ne li ni moom ci biir këram bëgg na am na ñoo xamante ne bugg leen faa gis yenn comportement yi ndafetluwu ko benn yoon ndax moom kat mooy kilifa këram yooyu yëpp nag mu ngi xewee bu ñu nee suba la tabaski waaye nag ki nga xamante ne moo di Assane Diouf moo yëkkati yi lay kàddu du suñuy kàddu ca noonee ci la daal di jëlee ab mbuusam gëm fa amoon daal di koy wan gannaaw daal di jubal ca këru xaritam ba nekk foofee ca al ca almadi di jëm jubal ci këru xaritam ba nekk ci almadi kookee ko jox caabi appartement mu nekk ndi fa Assane ba tey mooy xamle ni kii di metti El Hadj Diouf moom kat li mu yëpp lu muy def buzz lay wut moo taxit mu wax li ni mel waaye nag bu mu ko défendre tamit foofee ca tribunal ba teewul ni defu ko ci merci da koo fay xaas bu weex taal comme lu muy fay bépp avocat boo xamante ne moo ko waroon a mën a défendre. Assane Diouf jàpp na ki nga xamante ne mooy Viviane Ousmane Tounkara ñooy ñooy ñooy nekk ay xaritam ndax kat bu mu jaaxle ñoo yëkkati koppar bu takku teg ko ci ay yox ki nga xamante ne mooy saaka bu mat bi fii ci Sénégal ñu koy woowee Assane Diouf yemul foofu da cee dolli ni ñëpp avocat bi nga xamante ne képp avocat bi nga xamante ne wax na ci dossier Adji Sarr Sonko moom nag dafa farek nguur gi looloo tax ñu yëkkati seen i kàddu waaye ñi nga xamante ne dañoo neutre déew mi rek ñor leen ñoom yëkkatiwuñ benn yoon seen kàddu jëmale ko ci mbirum Adji Sarr Sonko Assane Diouf daal di ciy doole ni ki nga xamante ne moo di metti El Hadji Diouf su ne bu wàccee ci liggéeyu kaayam rek daa am wenn doomam bi nekk ci kanamu tele bi di zappé di ko déglul information yi lépp loo nga xam ne jëm na ci moom muy di avocat boobule doomam jooju nag moo ko koy wax bu ko defee ñu daal di toog ci biir saal ba commentaire loolu di kàddu ay Assane Diouf yu mu yëkkati woon foofee ca télévision bu war fa juri ñu leen di jaajëfal mbokk ASID TV dinañ jox dig daje ci yeneen i jotaay. ASID TV la chaîne des patriotes.